asalaamaaleykum serentenotu Dakar People ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ravi de vous retrouver dans votre site leader Dakar People site bu leen di jox ay renseignements yu leen en tey nag ñu ngi ci kër champion mooy Zarko ñu ñëw fekk yaay ji toog ñu bàyyi ko ñu mu nuyoo ak mbokk internetu Dakar People yaay bu la nga mbokk internetu Dakar People asalaamaaleykum hmm. nan nga wax sax Dakar People hmm. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp bàyyi ma kenn nuyu naa ñëpp ku fay liggéey rek nuyu ci nekk sa sa sant maa ngi nuyu ñëpp. dem ci yàlla may ko ci ndam kontaan mbég xol yu sedd ñu naqari woon rek neex nañu wax dëgg yàlla mm. na ñëpp kontaan mm. waaw. mu bëgg dem jël xanaa kontaan rek kontaan daal def nañ ko xale yi li tax ñu ne du dem xale yi dañoo mer ñii kontaan ñii mer ñii am billet ñii amuñu billet looloo waraloon ne ñu ne du dem yooyu lañ nekkoon billet yi leen jox foofu nag. ci autorité yi la dañ cee jàppul niñ ci war a jàppee defuñu ci niñ ci war a defee lu mu indi woon problème bi xale yi mer ñu jaar ni ñuy jaar ni daal moo ma waraloon ñu ne oto bi du dem mu reyanteeg ñoom daal di dem bëri bi nag combat bi nag moom da cee sonn sax moom da cee sonn dëgg dëgg dëgg da sonn ndax gis na ci lu nekk dégg na ci lu nekk wax muñ ko te yàlla tax man mi di yaayam dégg naa lu ne waaye déglu ma xoolu ma déglu ma xoolu ma lu ne dégg naa ko nag lu ne dégg naa ko wax dëgg yàlla ci bërëb bi mm. Mm. tànk ñaari <laughs> na ko ci ay waxam keroog bi ñu fi na. bu mm. ma bëggee jógee pour ñi bi sama yaay saa daa bañoon. dëgg yoo xam ne suy mënal la ñëpp koy ñëw dara xanaa muñ rek te xam ne moo obtenu day bëre. Mm-hmm. kuy bëre moom lu ne di ko dégg. lu ne di ko dégg lu ne di ko gis xanaa dangay muñ rek. ba lu yàlla def rek foofu daal lañ ko teg man boobu foofu laa ko teg daal muñ rek laa ko teg wax dëgg yàlla waaw. adversaire am rek. ma balaa tudd nëbbatu ba moom ajjuma jàll tudd mais sama tante moo ko tuddee Zarko tur boobu law sama wujju yaay mu juddoo nekk xale moo ko tuddee Zarko. tur boobu law ba léegi moom añ du ma jàll la tudd nëbbatuwul làqatuwul gis nga wax sa turu yaay ak wax sa turu papa xam nga ku mën ci yaw dara mm-hmm. yàlla nit kuy dox mënul ci kenn dara mm-hmm. yàlla moo mun ci doomu aadama mais du nit mm-hmm. dégg nga ma yàlla moo mën ci nit dara doomu aadama buy dox mën ci dara ndax ku ci nekk ku ci nekk xamoo luñ la bootee kenn xamul noo def ba judd kon nag nañ tëgg man sama wàll boobu man lépp laa teg ci loxo yàlla. mais hmm. ñu gis Zarko takkusaanam dafa am xadar nag. Hmm. dafa am xadar dafa ñeme li muy def ragalu ko parce que fii ragal dëkku fi góor yi jigéen nag ñëpp dañoo am fit kenn ragalu hmm. loolu la doon. kenn ragalu ragal amu fi. ragal li ñuy xale yi ne ragal dëkk Grand Yoff ragal amu fi loolu moo ci tey. te dañuy faral dégg ay njaago bi boo ko déggee ay dëkkandoo yu yàgg lañu ñu ay xaritam lañu ñu ay am di jàmm lañu dara xam nga ñëpp ay njaago ñoo fi dëkk ñoo fi ëpp presque. te mm-hmm. ñëpp benn lañu. boo laalee kii laal nga kii boo laalee olof bi njaago bi ñëw. boo laajee tukulóor bi jaago bi ñëw kon nag ñëpp benn lañ jaago ngi fi tukulóor ngi fi léboo ngi fi lépp ngi fi la te jaago yi dañoo ëpp ci moom parce que moom ñoom la defar génération ñoom la ànd di football di def lu ne daal fii ak Europe ak yëpp def na fa ay xarit njaago am na ko fii ay nitam lañu ñii dañuy football moom day bëre day football day bëre moom lépp lay def daal waaw am na loo xamante ne mën nga koo ñaax samay doom la ñoom ñaar ñëpp samay doom ñoom ñaar ñëpp waaye aada xaw naa ko mere tuuti ñoo ko meree gàllaaj yi dafa bari gàllaaj yi dafa bari ni da ngay gis nit nga tëkku ci yàlla gàllaaj yu bari li am ci làmb ji tamit dafa bari xam nga ay xale bu ñuy bëree ñoom. man sama gis-gis Ada Fass lañu jox victoire te bëreegul. Mm-hmm. làmb ji yëpp. nekkoon favori bi. waaw moo nekkoon favori bi. Mm-hmm. mais yàlla mooy joxe ndam. yàlla mooy joxe ndam mais làmb ji yëpp journaliste yi ñëpp. Mm-hmm. ñoom Ada Fass lañ joxoon victoire bi mais yàlla moo ñëw ay mbiram. loolu moo fa nekk mer nañ ko nag mais da ngay nangu li yàlla dogal. yaa ngi dégg nit di nga bëgg lii te yàlla bëggul loolu te aada waxam dafa rëy ñun wax nañu lu nekk saaga nañu wax nañu lu nekk dem ba ne dama xeeb Zarko nit ki doo wax xeeb kenn xeeb sa nawle xaalis moo leen boole làmb moo leen boole bari leen ngeen waxante lu baax defante lu baax dëgg la da di jaay seen combat mais am na yoo xam ne waru cee dugg ku merul woon dina meral nit Zarko du wax loolu ba màkk dékki du ko wax doomu aadama ak anniversaire bu mu mën a am du la dépassé du jàll ci sa kilifa du la saaga mais am na yoo xam ne rafetul jekkut man mii nit ñëw na ba ci man dama meer ma ne naa mu ne ma bu mu laal làmb kii kii yu aada faas ba mu laal ndiggam ndax aada dafa tàng ma ne ko dafa tàng naa ma na ko yàlla moo xam lu yàlla def lu xam ne loolu la. Hmm. man lu ne dégg naa parce que damay jaay ci marché yi laa nekk. Hmm. damay dem Sandaga damay dem Asalem damay dem Petersen marché Grand yi laay jaay lu ne laay dégg ku wax ma ne ko bàyyi naa lépp ci loxo yàlla lu yàlla def ñu xam ne loolu la. Hmm. yàlla nag mu ñëw ak ndogalam. mystique dëgg la mystique bu bari na man Zarko maa ko ne lii dootu fi am mystique bu bari bi danga koy wàññi takk téere bu fii sa dënn pour lan la loolu pour lan la ñun ñëpp samay doom lañu li may wax Zarko ma jàkkaarloog moom loolu laa koy wax ndax mbër yëpp suñu doom lañ ñooy seen yaay nit nag boo xamul fi ñu ko juree waxtu lu rafet def ci lu rafet loolu moo jaar mais xale li ñuy wax ëpp na ba jàll kilifa jàmbur du yoon am ñoo xam ne buñ la bëggoon sax dañ lay mere ci loolu dañ la ciy mere am na loo xam ne rafetul ci làmb man rafetloo ma ko. mais fu mu ne ko waxee est que nekkul ci ay doole boobu lay waxee xeeb na ko ci doole. xaw daal lu tax mu wax loolu daal loolu war koo wax nawloo ma la man maa ko dégg ndax man damay seetaan Bantamba. damay déglu seen kii dama koy seetaan yi nawloo ma la loolu kenn du ko wax yow ku ñu fay la fay ko pour ngeen sëgg nawloo ma la war a wax loolu Zarko lu ne lekk na ko ci làmb Zarko commencé wu ci làmb ji de Zarko ci raison yi la doon bëri ji di gañe ay nag di gañe ay xar di gañe ay xaar lu ne indi na ko fi lu ko dugal ci làmb magam bu mm-hmm. ñuy wax Lamine mu jël combat ragal bari ji moom mu ne ko maa koy engagé ndax moom dafa am fit. waaw ah, moom sax am na ñoo xamante suñ doon yi dañ ko doon dañ ko doon fay ko demal nga mhm. dëgg la magam moo doon bëri jël combat ba pare ragal a dem bëri mun ne ko yow nga jël combat ba pare doo ko bëri yow tàppat nga moo ngemb di dem bëri mu am ndam ci la continuer ba nii man dama opté woon mu dem tukki. mais mënuma yaay man bàyyi rek mu bëri dem na ñëwaat promoteur yi topp ko ba foofu jox ko avance man keroog bi ma woowee ne damay ñëw damaa tiit dañ maa la koy indil te avance moom sama loxo bi maa lañ koy teg maa def lépp waaw. Hmm. tey en jot na nga expliqué ndax su ma mënaan la Zarko bu nekk ji dem na fu nekk te dañuy dégg lu ne ci moom aussi en tant que yaayam jot na tamit nga taxaw. ndax sénégalais Zarko bari na baax na xam na ñooy kan xam nga àdduna moom ak xadar boo mën a am. Hmm. sa kilifa bu taxee bu waxee yow rek nga bàyyi su la nee xëy nga en arrière hmm. dangay am lu baax hmm. ndax nit day am kilifa te moom dafa am kilifa lu ma ko jur de fu ma mën a nekk moo ko nee téléphone. lu mu jàppoon dina ko bàyyi ñëw wuyu ma man nekkuma ak moom sama yaay ji la nekk kii sama yaay la kii hmm. moo ko yar fii la nekk man maa ngi dëkk fële ci kanam mais su ma ko ne woon léegi téléphone mu bàyyi li mu doon def ñëw wuyu ma lu ma ko ne lii laa soxla hmm. dina ko wuti ñëw teg ci sama loxo hmm. nga xale bu dee def loolu loo bëgg danga koy am ndax yàlla lay jàppale sa ñaanu waajur tey soo amoon lenn loo xamante loo koy ñaax yeboon naa déggal na daal comme ni ko soo amoon leneen loo xamante ne bëgg nga ko ñaax mu dolli góorgóorlu lan lay doon. xanaa mu takkaat takkuwaat bu dëgër gën a góorgóorlu parce que moo day day bëri bëri la bëgg. Hmm. mu gën a góorgóorlu rek waaw loolu laay taxaw. ok kon la comme naa taw mu tey. waaw nga maa ngi leen di sant nag di leen gërëm bu baax. di nuyu ñëpp nag. di nuyu nag waa marché Grand Yoff nag bu baax. surtout nag ki amal Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm di ko sant ci marché bi la nekk di jàppale Zarko bëgg ko ñoom ñépp ko bëgg wax dëgg yàlla di ñaanal mu di ko gërëm moom di ko sant jàpp na ci komba bu baax mais na ci gën a jàpp ndax moog Zarko ay doomi ndey lañu na ci gën a jàpp démb xale yi mer nañu torop ñii am nañu billet ñii amuñu billet xale yi jaxasoo nañ trop démb autorité yi nañ ciy jàpp bu baax ndax mbër mi rek munu téye làmb ji mbër mi rek munu téye làmb dafa am ñu ko war a jàppale pour làmb ji dem mm-hmm. du dëgg mm-hmm. ndax bari na supporter xale yi seen presse bi mu doon def mm-hmm. xale yi fees nañ fa dellu vraiment ñun xale yi dañu dépassé nit ñi dañoo dépassé li fi ñëw démb mosu fee ñëw mosu fee taxaw wax dëgg yàlla ñëpp grand parcelle ñëpp fi ñëw wax dëgg yàlla ñëpp ñëpp ñëpp ñëw macha allah maa ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant suñu dëkkandoo yi sonal nañ leen yoroon nañ leen àq te comprendre nañu wax dëgg yàlla comprendre nañ bu zarko di bëri ñoom ñëpp ay sonn yëkkati seen alal di ci def wax dëgg yàlla jàpp ci lu ne daal def nañ ko fi wax dëgg yàlla maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kontaan naa yal na leen yàlla defal jàmm yéen ci seen liggéey yal na leen yàlla defal lu kawe seen njort yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yal leen ko yàlla defal ci barke alxuraan karim yéen ñëpp maa leen di ñaanal kontaan nañu jërëjëf